tam boo xam ne euh, nit ñi foogoon nañ ne bàyyi nañ ko sax mais ba tey am na ñuy làkkatu di ko def du leen lu lulut euh, mutilation génitale euh, di excision maanaam ci wolof di xarafal jigéen donc voilà mu nekk loo xam ne c'est très dangereux parce que dafa daal di am ay risques yi nga xam ne ñoo ci daal di nekk mais aussi dafa nekk également li nga xam ne c'est interdit depuis très longtemps fii si suñu réew mais ba tey am na ay làkkkat yi nga xam ne ñoom ñoo ngi koy pratiquer parce que dafa daal di bokk si ñoom dafa nekk seen cosaan donc demoon nañ fële sa yëf APEX yi daal di euh, tiimali suñu micro à deux moments ak un frère donc nag ñoom it ñu daal di ci wax seen xalaat donc dañuy àndal complicité alsan daal di ko teewlu daal di ñëwaat sur les détails waaw ni ma ko gisee mooy day phénomène boo xamante ni bii ki ñu koy defal moom si boppam sax arrangé wu ko ndax man dama nekkoon ci zone boo xamante ne bii dafa fréquent mais nag yàlla def na ci ndam léegi ba nga xamante ni bi euh, ak association femmes yi comprendre nga ñuy lutter contre ça que ne du du du pratique bu bu bu aw yoon du pratique bu baax parce que arrangé wul sax ñi koy def parce que bon dafa bari ay conséquences yoo xam ne dafa négative yaa ngi may dégg bu baax léegi nag ci côté yooyu noonu léegi ñu ci bari léegi euh, defatuñ ko parce que man j'ai une famille boo xamante ni bi euh, une fille tout ses sœurs def nañ pratique bi elle est la seule à échapper à ça te loolu boo ko gisee rek yu demee nii moo tax sensibilisation yi moo tax. souvent dama koy dégg ñi ñu bëri di ko expliquer. loolu sax ñun ay góor lañu peut-être euh, jigéen ñi ñoo koy ñooy gën a xam euh, métit bi kon donc kon ñun en tant que góor bon euh, bu gars yi waxee rek baaxul rek baaxul ñun moom vraiment duñ ko duñ ko duñ ci ànd ak moom. à moins que lislaam am na lu mu ci wax mais li nga xamante ne moom day sonal doomu aadama moom vraiment du ci ànd. parce que xam borom bi moom subhaanahu wa taala yàlla dafa bëgg doomu aadama waaw waaw kon donc boo demee ba ñu ne baaxul rek euh, scientifique yi xool ne baaxul da leen di gàllankoor te nit moom li koy bëggal rek la xam ci àddina kon donc bu demee ba benn moment boo xam ne te yaa ngi koy def doo ci gis bànneex kon donc mieux vaut ñu arrêté ko quoi. Ah, man ma tuddee ko nag benn violence boo xam ni violence faite aux femmes parce tam ñëw fekk jigéen nga génne benn cër ci euh, a waaw euh, euh, xëñ na sunu maam yi doon nañ ko def mais tey euh, war nañu ko mën a abolir ni ñu abolir esclavage noonu la ñu war a mën a abolir excision pour la fille vraiment mu nekk loo xam ni aussi mi ngi gaañ xale yu jigéen ñi parce que xëj na bu njëkk jigéen ñi daan nañu ko supporter mais tey yéen xale yi mënu leen ko supporter seen sensibilité munu ko accepter euh, vraiment euh, ñu ñu ñu koy ñaan man ak sama moromu jigéen yi commencé ko ci man euh, vraiment ñu war ko ba mën bañ a defal jigéen ñi parce que bu ñu ne violence faite aux femmes rek kooku c'est la première violence c'est la première violence faite aux femmes donc vraiment dafa métti dafa métti vraiment te ñun ñi ngi ciy sensibiliser mm, ñi ngi koy ñi ngi koy wax parce que rafetul Euh, ndax euh, euh, ki ngay defal loolu dafay mel ni da nga ko wàññi. dafay mel ni da nga ko wàññi parce que ñëw teg ko am loo dindi ci moom moom pour moom dafa naan kon man am na lu wàññeeku ci man. te comme loolu loolu loolu moom nañu ko dindi parce que rafetul rafetul vraiment te métti na et puis ak li muy engendré ci ay feebar. Euh, ak euh, am na ci ay jigéen ñoo xam ni dañu am sax ay problème mu euh, kii problème problème mu grossesse bala ñuy wasin c'est tout un problème yooyu yëpp vraiment war nañ ko épargner suñu doom yu jigéen ñi. merci beaucoup mu nekk excision di maanaam xarafal jigéen nekk na loo xam ne lu métti métti la euh, boo leen xoolee nag euh, jamono buñ koy interdire commencé na xaw a yàgg tuuti parce que ñoo ko daal di euh, tere officiellement en 1999 léegi def na rek li nga xam ne mooy vingt 24 ans bañ koo teree ba léegi mais am na ñi nga xam ne dañuy daal di làkku di ko def donc ci études yi nga xam ne nit ñaa ngi koy daal di def maanaam ci école beet ci sensibilisation yi nga xam ne ñaa ngi koy def ci télé ci rajo yi. yi at ñi nga xam ne boo toogee eh, dañuy daal di waxtaan ak yow nit ñi commencé nañ ko wàññi ah, mais ñi nga xam ne ñooy eh, saytu loolu di xool statistique bi eh, donc di waa ANSD ñoom it nag xamal nañu ne carrément si dix jigéen yoo jël am na kenn koo xam ne jot nañ ko daal di xarafal donc mu nekk loo xam ne aussi dafa daal di métti loolu boo leen demee nag fi ngeen xam ne mooy si dëkk yi nga xam ne dafa daal di reculer un peu donc am na ñi nga xam ne ñoo koy def ba léegi si leen ko defee mën nañ leen daal di jàpp tëj leen mais dañ leen daal di bàyyiwaat boo leen xoolee ñoom sax farataaluñu li nga xam ne mooy interdiction bi parce que dañuy daal di nëbatu rek di ko daal di def ba pare nag dafa daal di am ay conséquences yu bari yi nga xam ne dafay daal di arrivé la femme bi nga xam ne dañ ko daal di xarafal bu ñëwee ci côté rek médecine donc mën na daal di am ay infection yi nga xam ne donc dafay daal di jaar dafay daal di jéggi dayoo parce que tey buñ la xarafalee dafa daal di am soins yi nga xam ne moom lañ la daal di war a toppee di la nettoyer di la toppatoo donc bu nekkee nag da nga daal di nekk foo xam ne dafa daal di reculer parce que am na ñenn yi nga xam ne dañuy dem ba ci àll ba daal di def donc microbe yooyu noonu tey mën na daal di créer ay infection yi nga xam ne day daal di la topp sa jiiru àddina infection yi nga xam ne mën na la daal di lor infection yi nga xam ne dootul wërati bala nga daal di am rek li nga xam ne mooy sensibilité pour pour en nga daal di infecté wu te loolu mën na daal di indi loraange bu ñu jugee foofu aussi euh, ci wàllum sëy dafay daal di indi ay complications am na ñi nga xam ne aussi euh, bu ñu leen xarafalee dootuñu am bànneexu sëy tey bu nekkee da nga daal di euh, nekk vaginal sax moo gën a moo gën a tane parce que di nga daal di xaw a am bànneex mais bu nekkee tu es clitoridienne doo daal di amati rek li nga xam ne mooy bànneex parce que si suñuy si lu ñu jot a xam tuuti dañu ne daal di culturiste bi la ñuy daal di dagg mu nekk loo xam ne lu méttee métti la aussi bu ñu ñëwee ci wàllum biir bu nekk da nga daal di nekk euh, femme enceinte da ngay daal di am euh, grossesse bi nga xam ne dafa daal di compliqué lool boo booy accoucher sax dafay daal di métti lool ba tey sax mën na la daal di lor et puis euh, du yow rek si yow rek lay métti dafay métti ci yow aussi dafay daal di métti ci ki nga xam ne mooy futur bébé bi nga xam ne moo war a daal di juddu mu nekk loo xam ne lu métti la nit ñi dañ koy daal di dund musulman am na ñi nga xam ne également euh, ñoo ngi daal di bañ euh, pour ñu daal di leen xarafal ba ñu daal di leen bàyyi àddina ak àllaaxira ci seen famille ah, parce que aada moom dafa am ñi nga xam ne dañ ko daal di fonk lool Aïcha ah, ba tax na boo deful rek li aada bi euh, daal di digle yow dafay am ñu bari ñi nga xam ne dañ lay mere ci famille bi donc excision nekk na loo xam ne ça interdit waruñu ko def ça ne se fait nañ ko daal di bàyyi Aïcha merci beaucoup Keina thème bi nga indi tey am na solo. Mhm. parce que c'est un thème très sensible. Euh, aada la sunna la wala farata la je pense que oustaz est mieux placé pour nous en parler. du farata du sunna farata mooy mooy euh, loo xamante ni lu obligatoire la sun na mooy loo xamante ni yonent bi sallallahu moo ne def leen ko waaye du farata du sunna waaye nag karaama la. li rijal maanaam teraanga la bu ñuy defal góor ñi charia la wax kara teraanga bu ñuy defal góor ñi parce que góor dafay bëgg soxna si muy jël mu njëkk ci moom mm-hmm. loolu bu jigéen jigéen ñi bu ñu xamoon loolu li muy def ci góor bu la bëggoon cent pour cent da lay jëgg deux mille pour cent dina lay jële ci benn daraja yóbbu la ci daraja bu kawee moom considération bu ne ci te jigéen bu nu ko xarafalee mm-hmm. dafa ci lay gën a am retenu ci boppam maanaam li nga xamante ni moo ko yëngal moo yëngal gaaw a yëngal jigéen loolu du ko gaaw a du ko gaaw a yëngal moom te itam dana wàññ dafay wàññi maanaam euh, euh, euh, plaisir bi nga xamante ni moom la moom moo poussé jigéen ci muy dem di dem ci góor ak yooyu daf koy wàññi ba nga xamante ni dina mën a dina mën a téye boppam mhm. loolu rek la ci ci ci ci ci aada maanaam aadala rek boo mhm. xamante ne da rafetlu nu ko sharia gis-gisam mooy karaama lir rijaal teraanga la bu ñuy defal ji ji eh, góor ñi maanaam pour jigéen ñi mën a téye seen bopp avant ñuy sëy pour ginnaaw bu ñu sëyee it du ñu am plaisir bu leen di sonal ba ñuy dem di ko uti ji excision donc yàlla tudd na ko si alxuraan. déedéet dégguloo ma li ma wax dama ne du farata du sunna. aada du farata du sunna. parce que mais nag aadala boo xamante ne déedéet dama ne charia. charia waaw quand on parle charia on parle de la jurisprudence. waaw al fiqh. waaw loolu bokkul euh, ak ak ak. moo jàpp ne excision. on euh, kii la bu ñu defal góor. c'est pour honorer les hommes justes. d'accord mais nag ñàkk koo def. wàññiwul dara. Euh, mm-hmm. wàññiwul dara ci jigéen amul ci ko ñàkk ko def daal. Euh, du bàkkaar dama jàpp ne. en tout cas du euh, bàkkaar man dëkk bi ma dëkk bi ma jàngee dëkk bi ma jàngee mais fo jigéen ju ko deful kenn du la jël. Oustaz maa la koy wax léegi hors antenne c'est-à-dire am na ñoo xamante ni dañ koo gëm dafa bokk ci ñoom hmm. pour ñoom jigéen bu buñ ko xarafalul hmm. dafa am benn sobe bu nekk ci moom hmm. am na ku ma mën sa expliquer ne ma moom mosul toog ci wetu maamam bu hmm. toogee maam ji daan ko jógal hmm. parce que xarafaluñu ko hmm. gis naa may gën nekk xale sama koñ bi ma dëkkoon koo xamante ni dem na ba am boroom kër ñu yóbbu ko xarafal ko coow lu rëy ci koñ ñoom xam nga lan lañ koy tuddee laabal nañ dem laabal ko pour ñoom fekk defuloo pour ñoom affaire bi sobe la ñoom fekk defuloo ko laabaloo ctt lu doy waar bu fekkee da nekk nag ci société bu mel noonu nag dem defi ko daal wàññiwul dara. aujourd'hui je pense que y' a beaucoup d' associations yu lutte contre bu euh, dee góor mën nañ ko nangu hmm. góor dañ koy xarafal mais jigéen moom vraiment ak euh, conséquences yi ci kay naa wax yëpp je pense que war nañ ko moytu bu baax a baax. man moom dama jàpp ne lu diine waxul yàlla santaanew ko parce que yàlla aussi bu bëggoon ñu dindi ko moom moo koy dindil boppam du du du indee indee jigéen noonu. Hmm. dama yaakaar ne euh, yàlla bu ku yàlla sakk. ëndaale ko ak loolu da nga bàyyi ak loolu nga yar ko ba nga xam ne dina am retenue mais li nga xam ne retenue bi c'est pas naturel loolu c'est une maladie te gis nañu par la suite maladie bi ni muy manifesté woo c'est vrai avant ngay marié dina am effet parce que peut-être doo am envie góor ñi comme ni ko ñeneen ñi di amee mais dangay dem marié wu après da ngay ñëw marié wu doo am doo li ngay li ngay sëy doo ko yëg fi après fa ngay mujj soit nga bàyyi fa sa jëkkër di dem def leneen wala sa jëkkër bàyyi la fa dem def parce que li muy dafa yóbbu ci a euh, a il y a beaucoup de choses yoo xam ne vraiment euh, c'est des choses à voir mais non quand il la religion qui la là suñu aada ak suñu cosaan day compliqué pour après nga indi modernité bi wax ci mais ku nekk rek boo wéetee yow kese yow ak ak ak sa sa sa xel rek nga xool def le pour et xool lii su ma ko defee ndax lii may jural jar na ko wala jaru ko. alors Asi loo ci sànni say la tàññoo man moom Aïcha moom lu lu nga xamante ni jigéen su ko defee daf ko nar a indil ay gàllankoor. parce que jigéen dafa sensible jigéen mooy jur jigéen mooy am ay règles jigéen lu nekk jigéen lay dal donc nañu fekkee ni que daal di nekkul loo xamante ni wér gu jaramu jigéen la nañ ko ci génne. Keina merci beaucoup jaajëfal nañ la thème bi tey am na solo ah, dafay baax des fois ñuy waxtaane yenn yi mhm. ah oustaz ñu ngi lay jaajëfal yow itam waxtaan bi am na solo ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk yi waaw jëf nga xam naa dañuy teg foofu sunu baaraam rek jox leen euh, dégg daje suba ak jàmm ci seen émission pencum l'islam incha allah ñu ngi waxtaan rek ba tey ci ak màkk ak yi ci aju macha allah kajo merci beaucoup Aïcha di jërë jaajëfal ñëpp ñi ñu doon teewlu. Mm. di leen euh, dig daje lundi incha allah. incha allah kay na merci. merci beaucoup mais tey damay remercier El Hadj Sall borom kër Soxna Bali Muntaxa donc euh, namoon naa ko daf maa fekk si ba sama kër jël si ma nee naa la di nga ma solo rafet na trop mën ngeen ko contacter sur le 77 343 56 94 donc mu ngi nekk fële ca Nord Foire boo leen ko contenee boo leen ko contacter rek di nga daal di lii mais aussi merci beaucoup à ñi nga xam ne mooy. waa Yoff franchement pour l'invitation euh, donc surtout Ndioro ma petite sœur donc dem nañ fa avec la 7TV ñu daal di ñu teral euh, berneel ñu donc euh, voilà di ko wax merci beaucoup yàlla nañ ko teewee ay at yu bare bare bare ci appel bi ba nga ko koy daal di defee sa kër di la jaajëfal bu baax a baax avec tout ta famille mais aussi di leen jox dig daje ba suba Aïcha inchallah ñu daal di ñëw ci astuce merci beaucoup Asia jërëjëf jërëjëf à toi Aïcha on se donne rendez-vous demain merci beaucoup à toi pour la complicité merci aussi à Wëz mi ci son bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax rendez-vous gars yi ba ëllëg incha allah d'ici là portez-vous bien et restez bien scotchés sur nos antennes.